une production vous aurez un bon ramadan une production vous leen un bon ramadan. communication dañ leen le soxla ci matériel téléphone portable jaratul ngeen dem Chine Japon Corée wala sax Amérique lépp li ngeen soxla rek mën ngeen ko am fii ci réew mi ak alhamdu communication alhamdu communication dañuy jaay ay batterie originale bépp xeetu marque bu mu mënti doon di ngeen mën a am batterie originale ci dimension bu ngeen ko bëggee ci njëg lu yomb. dañuy jaay ay chargeur yu baax original ci bépp xeetu marque téléphone bu mu mënti doon moo xam iPhone Samsung ak Tecno ak bépp xeetu marque bu mu doon rek am na ñu am original foofa ca alhamdu communication. naka noonu am nañu ay câble yu baax original. ak ay écouteur yu bax écouteur yu rafet dernière génération manam yi mujjé génn écouteur yo xamné dañu mëna and ak iPhone écouteur iPhone am nañ ko am nañu écouteur Samsung ak bép xétu téléphone bu ngeen yor ak bép xétu marque am nañu ay écouteur original fofu ci alhamdu communication. am nañu ay col blende yu bax original ci njëg yomb bép xétu marque bu ngeen mëna am rek am nañu col blendem mo xam Samsung ak iPhone ak bép xétu marque bu mënti doon am nañu ay carte mémoire 1 giga ba 64 giga. dernière sénération yu mujjee génn carte mémoire yu rafet yu baax yu garanti am nañu ay clé USB original bépp ziga ba ngeen mënti soxla am nañ ko ci clé USB am nañ ay bluetooth original bluetooth yu rafet yu garanti yu mujjee génn maanaam dernière sénération bluetooth yoo xam ne portable la foo jëm da koy mën a yëbbaale ak bluetooth yi nga xam ne fixe lay doon espicar sufur ak bépp xeetu bluetooth bu ngeen mënti soxla am na foofa ci alhamdu communication alhamdu communication dañuy jaay ay dégoudeur TNT ak bép xétu dégoudeur yu mën ci soxla ci dernière génération manam yi mujjé génn ay dégoudeur yu rafet ta garanti kon nak yeen commerçant yi yeen nga xamné da ngeen di jaay ay accessoires téléphone portable yeen nga xamné da ngeen ci bëgg en gros jarul ngeen dem ba bitim réew yomb na ngir ngeen am ko ci alhamdu communication seen adresse ma nga nekk ci Dakar rue Monsieur Diop angle etc seen numéro téléphone 77 329

ak bépp jafe-jafe bu mënti doon. am na sax ay jaaro yu baax jaaro yoo xam ne da cee dëxëñ ay secret yu mag ci wàllu lasaraar lu ci mel ni xaatimu Suleymaan ak yeneen xeetu secret. jaaro yi nag dafay yokk sa wërsëg ba noppi may la li nga xam ne mooy bayra ubbi sa buntu wërsëg ba noppi may la bayra ba noppi di la musal ci bépp musluwaay. Serigne Moustapha Nabi Sylla di borom xam-xam bu mag ci wàllu lasaraar yàlla may ko lool mu jàmbaare lool ñëpp wóolu ko. adresse am a nga nekk ca Ndakaaru. Pikine station Télébou Mab numéro téléphone am 77 694 33 77. Serigne Moustapha Nabi Sylla mooy jaajëfal waa seen production te di leen ñaanal kooru jàmm. برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراضي له شكوري على حياتي jamono bi Ibrahima Kodou Diop di jébbalu ci ku tedd ki Cheikhul Khadim jamono boobu li ko Cheikhul Khadim digaloon mooy li amoon ci alal ci xare boobu yëpp na nga ko delloowaat ndax dara daganu ci du jaami du alal ji ci noonu Ibrahima Kodou Diop daal di set wicci ci alal jooju nga xam ne moom lañ amoon ca xare sàmb Sadio loolu nag tax na Lat Joor daal di mer lool bi Lat Joor yi tamit daggi Lat Joor yi sàkku ci moom na ko fexeel nag nga woolu ki nga xam ne mooy sa mbokk di Ibrahima Kodou Diop. dagi lak jori nak fexé ba man mané Ibrahima koudou Diop ba andi ko ci lak jor biko ko jor wolo mu ñew mu laaj ko ne ko waw ana yow lan mo waral nga sukk ci ndabal teraanga yow ak say morom nga jékki-jékki rek dal dina wor mer juk wan ko ginaaw yematoo ci wan gi ko won ginaaw waye da nga tibbu suuf soti ko ci Ibrahima koudou Diop dal di koy tontu ne ko waw dama nekkon ci ndabal teraanga di lek man ak samay morom waaye dama jékki-jékki rek wëñ sërëx ma maanaam ma coroxaan daal di ne bëri suuf si daal di sotteeku ci sen kaw waye djublu ko ci ta Ibrahima ko du yob nak lim bëgg wax moy dafa jékki-jékki rek leeru ngëm dugg ci xolam ta leeru ngëm bu la xasse dugg leeru gëm yalla bu la xasse dugg lu bax rek ngay mëna def te it faaw rek di nga dem ci yoonu djub ci nonu nak la dal di koy bayyi mu delu fa nga xamni fa la wor mooy ca sëriñ bi di tarbiya nekk taalibe sëriñ bi waaye ànd ak loolu yëpp nag teewul dagg yi ñoom ñoo ngi wéy di soññ Lat Joor ngir mu woolu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag comme woolu na rakkam léegi na woolu sëriñ bi moom laaj ko lan ma waral mu firi li nga xam ne mag ñi firi woon nañ ko wax ne alal ji dagan na moom sëriñ bi mu araamal li nga xam ne mooy alal ji daganul daganulu ko loolu nag tax na dag yi ñoom sàkk woon ci Lat Joor ngir mu woolu sëriñ bi waaye Lat Joor nag moom mo ngi bind bataxal serign bi diko wolu waye nak lepp ci dal la koy wolu ak ñeewanta bugg la yee na digantam ak serign bi day neexlante ak mom dig bind bataxal diko wolu ci ak dal ak noyal waye serign bi nak mom saa bu Lat Joor yónnee ndaw moom itamit day wat ndaw ci mom saa bu Lat Joor bindee bataaxal mu bind bataxal tontu ko jox ko ngand xamal ko ne ko du jamono bi la mëna ñew bi mu démé ba yag nak serign bi dal di bind leetar lak jor leetar bu mujj daldi koy xamal ne ko damay rus malaaka yàlla yi di ma séen may dox jëm ci beneen buur bu dul yàlla jëlee nañ ci sëriñ Mouhamadou Lamine Diop mu wax ne taalibe bu ñuy wax sëriñ aadama Sall bokkoon ci taalibe yi njëkkoon a jébbalu ci waa Jolof moom moo yóbbu woon leetar bi mujj ci diggante sëriñ bi ak Lat Joor te leetar bi sëriñ bi moo ci bind ne Mouhamed ibnu Maslama radiyallahu anhu wax na ne borom xam-xam bu dem ci buntu kër bur day mel ni weñ bu taxaw ci ay ginaaw kër manam weñ bu taxaw ci ay cabinet bi letter bi accès ci lak joor nag lak joor daal di koy jox khadima jaxate kala te mom khadima jaxate kala momu mo dan atte fofu te it mo dan firi letter yi wax nañ ne sax mom khadima jaxate kala momu mo firi won atte bobu nga xamné ne alal ju won won ci xare Samba Sadio mom mo waxoon ne dagan na te serigne bi waxoon ne daganul indi won coow moom ma jaxate kala nag bi mu jotee ci lettre bi dafa tiit daal di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi la rajiun bi mu waxee lool nag Lat Joor dal di laaj ma jaxate kala ne ko waaw ana lan moo xew xaari daal di koy garaawal mu ne ko maa ngi lay ñaan nga wax ma lan moo xew ci noonu xaadima jaxate kala daal di koy nettalil ne ko dafa bind ci lettre bi ne weñ weñ bu taxaw ci cabinet moom lay méngale ak boroom xam-xam bu nek ci buntu keur buur yi kay man la concerné bi mu waxee loolu lak jonne ko li kay du sa yitte sama yitte la man mi la gëna a concerné ndax yow yaay weñ wi waye man may la ci des lak joor dal di lat khadima jaxate kala nako waw ahmadou bamba mi mom léegi lan lañ ko wara def khadima jaxate kala dal di koy tontu nako waw ahmadou bamba mi lima gis moy nañ ko bayyi fexel nga bayyi ko bu ko def dara toga rek di ko ndax bo jéemee notanteeg mom jema a ak mom mën na laa gañe te bu la gañee ndam lu réy lay denc moom turam day siiw ba faw ndax maa gañe Lat Joor moom ndam gënu ko rëy mu ne waaye nag yow mii nga xam ne yow la gañe nag yow yaay torox ba faw daldi suufe ba faw kon li ma gis mooy nga jéem koo bàyyi bañ a songante ak moom te jàpp naa ne jamono bii bu ngeen songantee dana la gañe ndax ñi ànd ak moom seen pas-pas dafa rëy ci moom lool Lat Joor ne ko kon Ahmadou Bamba mi nañ ko jàppee comme pàkk boo xam ne dafa nekk ci sa biir tool nga xam ne mënu laa saxal dara te it mënoo koo rëjji ngir bàyyi ko te du sax waaye doo ko mën a génne ci tool bi nañ ko jàppee noonu rek. ci noonu nag bi ñu demee ab diir nag benn bis xaadi ànd ak Lat Joor di ñëw ci benn dëkk boo xam ne sorewul dara ak fi sëñ bi nekk dëkk boo xam ne moom ak fi sëñ bi nekk sorewul bi sëñ bi yëgee nag xaadi ak lak jor ñew nañ ci wetu dëkk bi sëñ bi am mbégte lool ngir siyaara ki nga xam ne mooy xaadi ngir jox ko li nga xam ne mooy gi kóllëre gi nag ngir ñaari mbir la mbir bu njëkk bi mooy li borom xam-xam di wax ne ku la xamal benn araf sa sëriñ la te mënoo koo fay te sëñ bi am na lu mu jàngee ci xaadi tuuti ci xam-xamu naxwu lu mu jote woon a jàngee ci moom beneen bi tamit xaadi dafa nekkoon wëlëre papa anta tamit jokku kóllëre koo xam ne sa kóllëre papa la woon bokk na ci àq yi nga xam ne war na doom ak way jur loolu nag taxoon na sëñ bi jug ngir dem seet ci ki nga xam ne mooy xaadi ma jaxate kala bi sëriñ bi ñëwee nag daal di nuyu xaadi daal di koy ziara nuyu ki nga xam ne mooy Lat Joor ba noppi daal di toog ci wetu laltaay bi laltaay gi ñu laloon sëñ bi moom togg ci dafa leen a wormaal toog ci suufu laltaay gi toog ab diir nag waxut defut dara ba mu yàgg nag daal di tàggatoo daal di na ko xaadi maa ngi delluwaat dama fay ñëwoon rek doon la ziara te loolu lim ci jublu mooy Lat Joor xam ne sëñ bi tax ko woon a jug maanaam Lat Joor xamee na ci ne sëñ bi moom tax ko woon a jug moo ko taxoon a jug waaye nag Lat Joor daal di wax xaadi ne ko waaw a ah, mbir moom ñu doon firilu te sëñ bi firi woon ko nañ ci wax ak moom ndax kat la nga dagaloon moom daf ko araamal te sakku nañ ci moom ab jotaay ko am tey nag jotaay baa ngi nii nañ wax ak moom xaadi ne ko waaw bëggoon naa nga jox ma ay leeral ci fatwa boobu nga xam ne firi woon nga ko te man ma firi woon ko lu ko jiitu ndax ahmadu cheikhu ba dafa ñëwoon woote ak nubuwa ne moom ab yonantu la kon dafa murtat te itamit dafa tuumaal yàlla kon kooku daratam dagan na alalam itamit dagan na ngir ñu lekk ko bi mu waxee loolu ngir sëñ bi tontu ko jamono bobu sëñ bang ne call mbooloom yëpp daal di ne call waxul ab dir sëñ bi dal dina ne ko ndax da nga wax ngir mo tontu la mu ko waaw man kay bi may wax dama bëggon ko tontu mo tax ma wax bi mu waxee bi dal dina ko ndax amna tontu la ko waaw am nga tontu ma kay bi ne ko kan moy sa sédé ne Amadou Cheikhou Ba daf doon wote ak nubuwa mu ko wa kadior mu ko wa kadior bi nga noy ay première nonam ñooy noonam yi gën a mag ñooy xeex ak moom bu dégg bëccëg xare bi sax ci ñoom la soqalikoo kon est-ce que ñoom mën nañ seede ci ñoom xaar yi ne ko waa Samba Sadio ñoo wax loolu fa xare bi amee woon mu ne ko waa Samba Sadio nga xam ne kuréel yi dañ leen ñëwee penku ak soowu kuréel bu nekk jugee penku ñuy jugee soowu xeex bi ñëw ci seen kaw te yëguñu ñooñu nga xam ne xamuñu sax bis bi xeex bi di am yëguñu ko dañoo jékki-jékki rek gis xeex bi ci seen kaw ñooñu kan moo leen war a xamal ne Ahmadou Cheikh Ba daf doon woote ak nubuwa bi waxee loolu nag xaari ne cell mbooloo mi yëpp ne cell kenn waxul ab diir nag bu yàgg lool ginnaaw bi nag xaari daal di ne ko sama doom dañu laa tegtal buur bi nga jiituñu fa kon nag maa ngi lay dokkeel foofu nag ñu tàggatoo foofu la jotaay ba tasee foofu la pënd ba wuree ku nekk dellu ca la nga nekkoon nettali nañ ne bi jotaay boobu jeexee Lat Joor bëgg-bëggam yëpp ak xemmemteefam yëpp ak li ko xolam doon may mooy mu songu sëñ bi xeex ak moom not ko ndax li nga xam ne am na ci jotaay boobu lépp dafa gis ne daal dara neexu ko ci ba tax na amoon na ak mer goo xam ne teeloon na ko sëñ bi ci jamono boobu ba taxoon yéene mooy songu sëriñ bi jéem a dal ci kawam waaye jamono yooyu nag beneen jafe-jafe daa ñëwaat ci kaw Lat Joor ndax digëntam ak tuba bi dafa nakari lool ndax tuba bi kat ñoko ko doon jàppale ba nimu gagné ki nga xamné moy ma jojo jamono bi mi juggé salum tuba bi yoko falon kon bi yoy la la door amal jafe-jafe lol nak nek jaxaré ak tis ci mom ak itam nakar xol ba taxna na mbirum señ bi sax yiteelatu ko légui nak amna na mbir mu nekkat problème am mu nekkat ci kawam jamono yooyu nak señ bi mom ay mbiram day gën di yokku di gën di mag mbooloo mi di jugee fu nekk di ñëw ci moom dëddu àdduna jublu ko ndax ñi àndoon ak moom ku ci nekk pas-pas bu rëy lay ñëwee waaye àdduna du ko yëkkati Lat Joor itam problème am di gën a yokk di gën a dolleeku digganteem ak tubaab bi mu dem ba mënatu koo dékku ci la nag gàddaayee delluwaat Saalum yoonu ñaareel bi nag mu gàddaayaat dem Saalum bokkul ak gàddaay bu njëkk ba nga xam ne maa joojo moo ko dàqoon ci jamonoy ba bokkul ak boobu bii nag moom bi mu démé ba nek bour kadior ab dir bi problème yi bari ci la ñëwaat saalum ba muy dem saalum nak mo ngi and ak mbolo mu takku lenn ci ak njabotam ak ay surgam ba ci sax nga ay dagam mbolo mu takku lool bi la jor agge fa nga xamné nak moy salum amu fa kenn ku dul sayid ba di doomu malik ba ñu gën ko xam ci mabba joxu ba moom sayid ba di doomu mabba mom rek la fa am ta ta boba sayid ba amul doole nonu saalum donte ne doomu mabba la te mabba itam moo nekkoon kilifa ak Saalum waaye li waral moom Saxiit Ba am bu fa doole mooy taalibe mabba bi gënoon a mag ñu koy wax Baraan Siise moom dafa wan ki nga xam ne mooy Saxiit Ba ginnaaw daal di ber yoonu boppam moom Baraan nag mbooloo mu takku takku ñoo ànd ak moom ca Saalum lu ëpp ci waa Saalum moom la ñu àndal loolu nag taxoon na Saxiit Ba xawoon na néew doole waaye Saxiit Ba boobu moom la Lat Joor jaayanteloon ginnaaw bi Maba faatoo Sayda boobu moom mooy taawu Maba joxu ba te seen nekku Saalum googu day xat ci ñoom lool ndax ñoom tàmmuñu bu ñu nekkee ci benn suuf ñu interdit leen côté bi ngeen di jaar côté bi du ngeen fa jaar te fa nga xam ne moom la saxiit ba moom foofu rek lañ am ndogal waaye fa nga xam na nag moomu ko amuñu fa ndogal te loolu day xat ci ñoom lool loolu nag taxoon na Lat Joor ak ñi mu àndal xatoon Saalum loolu ñu xat fa lool amuñu fa ak yaatu amuñu fa ak firi loolu nag demoon na ba mbooloo mi ànd nag Lat Joor defoon ñaari xaaj benn xaaj bi xamal ko ne ko faw rek ñu jéem a muñ des Saalum beneen xaaj bi xamal ko ne ko faw ñu jéem a dellu fa nga xam ne moom mooy Kajoor donte dañuy xeex ak tubaab yi not leen faw ñu jéem a dellu waaye Lat Joor nag nanguwul woon xalaat boobu xalaat boobu nanguwu ko benn yoon ndax xam na ne bu xeexoon ak tubaab yi mën naa am tubaab yi gañe ko ci noonu nag Lat Joor di nekk ca Saalum ànd ak xat lool xat na fa lool ndax suuf su xat lañu nekk moom ak ka nga xam ne mooy shahid ba di doomu ba Jaxu Ba Lat Joor nekk fa ci jamono boo xam ne nekk na loo xam ne gënalu ko woon mbooloo mi àndoon ak moom itam xatoon fa lool waaye nag bi ñu demee ab diir nag lu ëpp ci mbooloo mi àndoon ak moom daal di koy war ànd ak jarbaatam bi nga xam ne mooy Sàmba Lawbe ñu daw dem fa nga xam ne mooy Kajoor ba ñu dawee dellu Kajoor dem négocier ak tubaab bi jàmm sante ak ñoom tubaab bi daal di fal ki nga xam ne mooy Sàmba Lawbe nekk buuru Kajoor Lat Joor nag loolu naqari ko lool taxoon na ku mu xool rek du gis mu ànd ak moom gisul kenn ko ànd ak moom àdduna tamit naqari ci moom metti ci moom ci buur bu mel ni Lat Joor taxoon na nag mu doon xool ba nit la war a dem ci moom ngir mu gindi ko teg ko ci yoon waaye bu xoolee ñëpp du kenn du ko doy ndax kum xol dina gis ne ak lo day nek ci mom wala muy wax di xol intérêt wala muy wax ngir soko ko sa information moman mo man la siwal nan ñaw lak jor bi mi ñew ci man di joytu ay problème am nga xamne dal amul ci confiance ci kenn xelam may ko kenn ku dul serigne tuba khadim rasul mi nga xamne ne gis na ci mom ak sel gis na ci mom ak ragal yalla ak manu amul farfarlo ñepp ñoyam ci mom ngir jëmmi yalla ta yalla tax ci noonu nag Lat Joor daal di ñëw ci Serigne Touba foofa mu nekk ngir waxtaan ak moom bi Lat Joor ñëwee ci Serigne Touba daal di waxtaan ak moom te ko gis naa ne ku sell nga ku maanu nga ku ragal yàlla nga te xol bu sell bu laab nga am amoo yéene bu ñaaw ci kenn te koy waxal da koy waxal rek ngir yàlla li nga yéene sa bopp itam nga yéene ñëpp te yow rek laa gis ku mel noonu ci jamono bii moo tax dama am problème nangam ak nangam bi ma tubaab bi am ak man jafe-jafe ma dem ba am ci njàqare daw dem Saalum Saalum googu dama fa néew doole lool ndax saxit ba ma fa am amu fa doole tey tamit jamono boobu may nekk Saalum nag ña ma àndaloon ñi sama waa kër dañu ma war ànd ak Samba Loobe daanaka ñu néew ci sama njaboot ñoo xam ne ay gor lañ ñoom rek laa fi dese bi waxee loolu nag Serigne Touba daal di koy xamal ne ko ku àdduna woon ginnaaw dey li gën ci yow mooy nga war àdduna ginnaaw bu la àdduna tay tamit nak nguur gu bes gi ma fi gis ni ndortu mané di nga leen mënal dara nak doole ju reey lañu am ak katan japp na ne yalla rek may man ci ñom dara li gën nak ba gën gën te gëna noppale ci yow te gëna nek noflay ci yow moy nga def ni sa mbokk mi def moy Ibrahima du job nga ñew jëbbalu waccandiku jox sa bop yalla bu boba de ma ngi lay giñal ne di nga am jammi adna jammi jàmmi bi waxee loolu Lat Joor daal di koy rafetlu ne ko yàlla xam na ne li ngay wax lépp laa gëm xam naa ne dëgg ju wër ngay wax loo xam ne amul benn sikki sàkk te xam naa ne li ngay wax itam moo gën ci man waaye nag du dagan ci buur bu mel ni man ñaaw na ci buur bu mel ni man may waccandiku àdduna ak fi ma jaar yépp li ma gis daal comme xalaat mooy yow moom yàlla rek a la ñor te ci yoonu yàlla nga jëm léegi du ma waxtaan ak yow mukk ci mbirum yàlla mbirum yàlla rek ci laay waxtaan ak yow mbirum diina ak ci sama mbirum ëllëg yowmal xiyaam ak lépp loo xam ne jaaxal na ma ci sama diina rek dinaa ñëw di ci waxtaan ak yow la ci des nag moom mën naa ko lijjantil sama bopp ci noonu nag mu daal di sàkku ci sëriñ bi ne ko damaa bëgg nga jox ma wirde bu may wirde ak ñaan bu may ñaan ba noppi nga jox ma mbubu moo xam ne sa mbubu bopp la booy sol ngir ëllëg suma faatoo ñu mën ma ko dencaale bëgg naa itam suma faatoo nga di ma ñaanal te bu ma fàttee mukk bi mu waxee loolu sëriñ bi daal di koy jox benn téere ci téere yi mu taalifoon boo xam ne istixfaar la ngir mu di ko jàng ci noonu itam sëriñ bi daal di génne boobu boppam daal di koy jox ci noonu la tàggatook Lat Joor bi Lat Joor delloo nag jamono yooyu tubaab yaa ngi koy wër. ànd ak mbooloo bu bari ci buuru réew mi léegi nag tubaab yi am nañ doole ndax buur yu bari ci dëkk bi ci réew mi dañoo mujjoon ànd ak ñoom te tubaab yi boobu seen yitte mooy fexe ba éliminer Lat Joor comme ñàkk déggoo am na seen diggante. noonu lañu ñu wëree Lat Joor ba gis ko fi mu nekk daal di koy songu xeex ak moom xeex bu tar xeex bu tàng jër li Lat Joor di néew néew néew mbooloo teewul ak jàmbarte gu mag feeñ na ci diggante ak tubaab bi mu xeex ak ñoom rey ci ñoom lu baree baree bare waaye ab diir rek ñoom ñu dem ba ñu ñu ko doon dar jeex amatul kenn koo xam ne mën naa dar Lat Joor nga xam ne moom kenn moo ci des tubaab yi sot sotoo ko xecc yi ak fett yi di ko ñëwee fu nekk ak balifetal yi noonu lañu reyee ki nga xam ne mooy Lat Joor waaye bi muy faatu dafa jublu penku fi mu tëdd ci kaw fas bi ngir yéene gi mu yéene woon jihaat ndax dee ci li nga xam ne mooy ak shahid nekk ku texe moom Lat Joor noonu la faatoo yàlla na suñu borom dolli yërmandeem te dolli njëggalam ci barke sëriñam boobu di ku tedd ki cheikhul xadim bàyyi ak cheikh Abdoulahi Mbacke borom dër bi di borom daaru rahman الحمد لله الكريم ذي المنن على سبال بفرود وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على سبال بفرود وسنن شكرته لأنه خسافني الحمد لله الكريم ذي المنن على سفال بفرود وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن